asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kilifteefu cheikh muntaqa mbàkke ibnu cheikh mamadul bachir mbàkke xalifa général des mourides ci kilifteefu sëriñ abo mbàkke ibnu cheikh mohamadul faadal mbàkke ci taxawaayu njabootuk soxna mareema kunta bintu sëriñ tuubaa cheikhul xadim jëwriñ sëriñ fàllu sill di xalifa sëriñ maxtaar sill moom soxna mareema kunta moo leen di yëgal daaray alxuraan ju mu war a taxawal ak jumaa ca suuf see nga xam ne nii waajuram sëriñ moxtaar sill nekkoon ci ndigalul nijaayam cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu cheikhul xadim moom cheikh mamadul faadal mbàkke moom nag bi mu toogee toogaayu sëriñ tuubaa cheikhul xadim la jëloon nag jarbaatam bii nag di sëriñ maxtaar sill yóbbu woon ko nag ci dëkk bi nag di ngaay mexee doon ko xamal na nag damaa bëgg na nga toog fi nag sa toogaayu maam képp koo xam ne ni nag jébbalu na nag ci sa maam nga nekk nag jëwriñam lool nag moo waraloon nag sëriñ maxtaar sill nekkoon nag suuf soosu lu tolloog fanweeri at ak juróom-ñett na ko nag moo ko fa jëlewaat bi sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag toogee toogaayu Cheikhul Khadim la sàkku nag ci sëriñ maxtaar Sylla mu dellusiwaat Touba nag ñoom ñaar nag ñu ànd liggéeyal Cheikhul Khadim ci bi mu nekkee foofu nag ci suuf soosu nag di ngaay mexee la nga xam ne nii daal moom lañ ko fa jébbaloon nag mu nekkoon fa nag di fa bay bi doomam ji nag di sëriñ Fallou Sylla nag Muxtaar toogee nag ab toogaayam ma nga doon dundal suuf sa nag di ko bayee ci at mii nag ñu nekk nag la waxtaan ak nag ki fi toogal Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di sëriñ Abo yéene nag jum ca am ci ginnaaw nag bu mu defaraatee suuf sa ci ay këyit toppatoo ko ci administration nag bi fi nekk ba jot ca la waxtaan nag ak sëriñ Abo Mbàkke di ko xamal ne daal suuf soosu nag jot na ca daaray internat nag ju mag nag la fa bëgg a taxawal ak jumaa joo xam ne ne nag su noppee waa tund woowu nag danañ fa man nag di fa nag def nag seen farata yi nag julli loola itam nag sëriñ Abo Mbàkke itam nag ànd na ca ak moom di ko xamal ne saa ci jubuloo rek nga wax ma ko ma ñëw nag teg si xeeru jumaa ja teg si itam nag taala bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Falilou Sylla Maxtaar moo leen di nuyu sama kàddu gi ak sama jëmm ji nag bu ngeen ko gisee tey jii ñaar fukki fan di bisub alxamis ci weeru mai danoo demoon sëriñ Aboul Baraka xalifub sëriñ Falilou àndoon ak sëñ abi bu Mbàkke moom sëñ Fàllu ak doomam ju ñuy wax sëñ Moodu Mbàkke mu tuddoo ko sëñ Moodu Busa Jang lan lañ fa doon wuti mooy murit dafa amul lu dul ndigal ndax yoonu mu ci ndigal rek lay dox lépp lu waaye di def ci àdduna rawatina ci yoon wi da ko war a def ci ndigal yàlla dogal nag suñ maxtaar si la barab yooyu yi nga xam daf koo bàyyi woon ngaay mexe ñu war faa tabax daara ju mag yoo xam ne daara alxuraan lay doon yoo ne fànni xam-xam lañ fay jàngale war faa tabaxaale juma doon laaj si ndigal li ak bëgg suñu ëboo ñëw tegal suñu xeer bi lii moo ñu yëkkati woon tey ñu demoon ci sëriñ ëboo doon ko wane liggéey bi fi liggéey bi toll ak doon ko ci laaj ndigal ngir saa su ko ak jotam mayee mu mën a dikk li tàmbalee kajoor gépp daje fa siyaare ko mu ñaanal leen teg xeer wa wëlbatikuwaat moo taxoon tey jii ma ànd ak sëñ ab sëñ abi bu Mbàkke Falilu doon ko leeral loolu ci bisu tey bii ma bëgg image bi képp ku ko gis xam ne wàccaay yooyu moom ñi ngi ci ngir fa yéene defar barab ba mu sell ñu tabax fa daaray alxuraan tabax fa jumaa wut ay jàngalekat yóbbu leen fa ñuy jàngale te yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba rek tax ak liggéey bu fa Serigne Fallou du liggéey. boo xam ne ba adduna jooju nag ak jumaa jooju ci suuf soosu nag mu nekk suuf la soo xam ne ni nag sëriñ maxtaar silla ay toolam nag la woon mu fi daa bàyyi bayitim nag tool àllarba di ko yititim nag nijaayam nag cheikh mamadul faadal mbàkke mu di ko def nag ci jumaa ji bi cheikh abdou xaadir mbàkke nag toogee toogaayu cheikhul xadim la ko xamal ne daal dama bëgg nag nga ñibbisi waa tuuba ñu ànd nag liggéeyal nag suñu yaakaar ji nag cheikhul xadima suuf soosu itim nag sëriñ maxtaar silla itim nag bàyyiwu ko woon bëggoon ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag ak njabootam itam nag wéyal nañ ko di ko sàmm nag te itam nag di ko dundal loolu nag moo waral nag mu dul faadal Syll nag bi mu jotee nag ci suuf si ci ginnaaw nag bu ko meeri bi nag wotee ak conseil yi nag ba jébbalaat ko suuf sa nag ci ay këyit nag ngir mu yor ko mu dabuwaat itam nag ngërëmul Cheikhul Xadim ci aw tur ndax kat Cheikhul Xadim nag ci ak mujjëm képp koo xam ne nii nag ñëw nga nag di ko laaj nag turu dëkk bustaanul haari fii nag la la nag ngir nga tudde ko nag la moom it nag la taamu ngir suuf soosu nag mu am nag te waajuram nag yoroon ko nag doon fa liggéeyal nag Cheikhul Khadim mu dabuwaat itam nag turu Cheikhul Khadim wow nag mu doon joxe nag ci ak mujjam tudde ko bustaanul xaari fii na loolu moo waral itam nag Serigne Fallou Sylla itam nag tudde ko Touba bustaanul xaari fii na suuf si nag mi ngi nag ci maire yi nag bu Koul ci arrondissement nag bu Mérina Ndakar ci département nag bu Tiwaawoon région nag de Thiès liggéey bu am solo boobu nag yéene nag moo ko taxawal yéene jooju itam nag ngërëm nag lañ nag wala nga bëgg cee am nag lu la leer ubbil nañ ko nag compte bancaire ci banque bii nag di Ecobank Sénégal numéro compte bi nag mooy 101 307 815 001 101 307 815 001 wala nga woote nag ci numéro téléphone yi rek ngir am ci nag lu la gën a leer 77 640 24 87 77 640 24 87 wala 76 244 47 11 76 244 47 11 ñuy jëf nag yàlla na méngoog nag li sëriñ bi bëgg